doon am à l'instant par rapport ak euh, point du jour bi mais waaye am na beneen xibaar bu wóot par rapport ak euh, décès yi nga xam ne am nañ ko tey euh, suñum réew nga xam ne tey suba rek ñu ngi nekkoon ci trente décès waaye fu mu toll nii ñu ngi xamal ne am na ñaari góor yoo xam ne ñàkk neen seen bakkan kenn ki ay atam toll si soixante et un ans keneen ki nag ay at mu gaañoo foofule si hôpital Fann keneen ki ay atam toll si soixante huit ans gaañoo foofule si hôpital Aristide Le Dantec Euh, mu mel ni comme madame Dieye feebar baa ngi wéy di law cas yi ñu ngi euh, gën di yokk cas grave yi aussi euh, ñu ngi yokk ñu gis ne aussi liminit yi nga xam ne ñu ngi génn àddina ñu ngi gën di yokk parce que fu mu toll nii mun nañu wax ne mu munoo toog ñaar ba ñett fan te déggoo ab euh, nit koo xam ne rek gaañu na fii si euh, Sénégal si feebar bi du coronavirus noo jàngatee mbir mi évolution maladie bi en même temps au et au moment président de la République Macky Sall jël décision yolomal mesures yi nga xam ne jëloon na ko ngir daan feebar bi di coronavirus. jërëjëf Ndiap maa ngi lay euh, gërëm di rafetlu sunu teewaay fii nga may ñu rek ñu ziar sénégalais yi déwénal leen baalu leen àq di leen baal di ñaan yàlla mu jéggal ñu sunuy bàkkaar di ñaan yàlla it mu sàmm senegal di ñaan yàlla ñi feebar mu taxaw leen mais te yàlla taxawuñu ñu dimbali ñu ba lii nga xam ne mooy mbas mii mu indi ñu ci pexe bu ñu yaakaarul fenn mm. ndax fi mu nekk nii toll nañu foo xam ne delloo suñu bopp yàlla rek moo fi sës mm. léegi nag euh, par rapport ak euh, li nga ma wax ci cas yi mooy lii wund rek sama ñaan bi may ñaan nii cas yi bari nañu cas yaa ngi gën a bari mais fan la ñu jëm ak yi parce que dina am benn moment dinañu yegg ci pikk mais kaña lay doon euh, mu doon loo xam ne tey buñ ci waroon wax nga may ma rek ñu fàttali tuuti mbir mi fi mu tàmbalee ba nara yegg si fii mënuñu ci yaatal waaye il faut ñu wax li nga xam ne tam neexuta bañ mooy dëgg gi tey jii bu ñu yegsee ci assouplissement ñu tuddee ko assouplissement euh, man pour man du assouplissement seetaan la gedd la daw la euh, bàyyi ñoog sunu feebar ndax feebar bi sénégalais yépp la concerné kon dañu naan lan moo tax ñu yegsi ba fii euh, bi ñuy tàmbali dañu wax taan moom président Macky Sall woo ñi nga xamante ne ñëpp yaakaar na ne war nañu mën a waxtaan ak moom jox ko xalaat mu woo leen ñu wuy ci ko mais bi biñ ko wuy lan la ci namoon ndax dafa woote ñu wuy ko kon foofu amatul woon benn raison pour dire man rek mën naa dem bañ ko wuy it ku ne déglu na sa xalaat président Ousmane Sonko wuy ji ko comme les autres euh, euh, leaders de l'opposition mais bi ñu ñëwee li ñu jàngat mooy bañ ca tegee ay fan rek moom dafa daal di dérouler plan wam mm-hmm. plan boobu mu dérouler lan lay wane mm-hmm. que dafa bëggoon rek lu mu mbubbawoo ni boole na ñëpp liggéey mm-hmm. mais dafa indi benn stratégie boppam mm-hmm. stratégie boobu man néew ma moo ñu indi lii ñu am tey waaye tax na ba mu wéet ak feebaram xamul fu mu jëm ak moom mu jallaxaat ko Sénégalais yi mm-hmm. encore je ma dis que lii ñuy tuddee assouplissement pour man du assouplissement stratégie la parce que bu sénégalais yi euh, jëlee ay mesures ndax bu doon déglu na euh, euh, kii yi comment on les appelle la société civile les politiques donc toutes les forces de la nation tey jii duñu yegg si fii parce que ci booba doon na déglu ku ko ni moytul lii moytul lii dina déglu ku ko ni nañu tëj frontières yi nañu fexe ba famille bu jot famille bu nekk ñu jox la xaalis boo téye neewoon nañu mille par famille mais mënoon nañ ko yokk ba cent et quelques mille par famille famille boo ko jox dina toog këram su boobaa feebar bi du circuler bu ñu tëjee frontières yi feebar bi du dugg donc dinañu mën a julli ji dinañu mën a boobaa couvre-feu yeeg yii yëpp da ko woon jar. mais il a décliné sa propre stratégie dem na ba ca biir au début man xalaat naa sax ni dañ doon wax ni xëy na yëfi da ko ëpp doole mais quelque part est-ce que daf ko ëpp doole lépp mën na bokk ci plan bu mu teg pour yegg ak sénégalais yi foo xamante ni danañu wëlbatiku nag xam ni kii defendre lu dul ay intérêt personnel am ak moom ak ñi muy àndal mais pas les intérêts de sénégalais. Mhm. Euh, madame Dieye yaa ngi wax euh, mbirum ñàkk déglu ak euh, mbirum cavalier seul ñu me nga mu nekk mbir boo xam ne peut-être mun nañ ko nangu mun nañ ko bañ a nangu parce que gis neen organiser na ay audience yoo xam ne recevoir na ay nit yu bëri yu féetoo si opposition bi ak ñeneen ñoo xam ne sax féetoo si société civile comme ni nga ko souligné sànq si say kàddu ñu gis ne seen leader Ousmane Sonko ba mu génnee dafa xamal nit ñi que le président de la République Macky Sall am na lu mu ko wax par rapport ak yokkute def dund bi euh, aide alimentaire bi nga xam ne moom la jagleel pour euh, les couches les plus vulnérables président Macky Sall euh, nattoon ko si lu toll si cinquante milliards de francs CFA mm-hmm. mais ba kii di Ousmane Sonko ba mu ko waxee ay préoccupations par rapport ak sombu ndaw bi gis nañ le président de la République yokk si soixante neuf yokk si ba affaire bi toll si soixante neuf milliards de francs CFA. Mm-hmm. est que foofu mën nañoo wax ne président Macky Sall il a cavalier seul. mais il a fait plus parce que déglu Ousmane Sonko moom mu ne ci cinquante milliards la fas yéene taxaw pour aide alimentaire Ousmane Sonko génn ne recevoir nañ ko wax na li mu xalaat mais surtout ci limu xalaat dafa am lu jiitu 69 milliards dafa wax ni waxtaan na ak Macky waaye li mu gis mooy xaalis bi ñu ne dañ koy indi balaa ñu ko doon def dañu war a wax fan lañ koy jëlee bu ñu waxee fan lañ koy jëlee ñu taxaw ci naka lañ koy joxe bu ñu paree ci naka lañ koy joxe ñu daal di taxaw ci ñan ñoo koy joxe maanaam mu am benn service de contrôle boo xamante ni benn système de contrôle boo xam ne mais dinañu xam mbir mi naka la te loolu jafewul y a des chiffres qui sont là l'ANSD pouvait aider d'autres secteurs ministériels pouvaient aider mais loolu yëpp bañ ko waxee ñoom cinquante milliards ba ñu waxoon pousse ko ba soixante neuf milliards rek la ñu wane. wëlbatiku di wane ay affiche yoo xam ne wane nañ ne euh, Macky Sall mi ngi déglu Ousmane Sonko di wane ay kii yoo xamante ni man pour man loolu stratégie la parce que bu fekkente ne 69 milliards yooyu tey jii dafa taxawoon pour régler ko problème mu Sénégalais yi ba léegi ni Sénégalais yaa ngi ci problème dara sotteegul suñuy seet pourcentage yu ñuy recevoir matul gu ñu cinq pour cent. Mm-hmm. Sénégalais yi jaaxle nañu tiit nañu xiif nañu fi mu nekk nii xamuñu fu ñu jëm. donc foofu dama naan ba tey stratégie man ci logique logique stratégie laa nekk ba tey bi mu recevoir yi Ousmane Sonko la ca topp bu ñuy teg yoon rek lan la ci lañ ko gëjee dégg ba muy wax ak Ousmane nee na ko président Sonko nee na ko question yi nga ma posé yépp am na kuréel goo xamante ni danañ ko saytu fii ak vendredi danañu teg dara ci loxo nit ñi ça fait combien de mois presque ñaari weer ci lu sérieux lu toll nii lu doyee waar nii kon ça veut dire que quelque part y a un peu de laxisme wala mooy li may wax benn plan la parce que nag euh, am na loo xamante ne bu la ko ñëpp mayee te sénégalais yi desetul ñu Macky Sall dara dem nañu assemblée nationale mu am ut fa ab loi wam boo xam ni soxlawu ko woon parce que moom lu mu bëgg assemblée daf koy am il est majoritaire. Mm-hmm. soxlawul woon dara ci li muy def donc il a une stratégie que peut-être les sénégalais verront ci kanam. Mm-hmm. donc. décrété na état d'urgence décrété na couvre-feu ban njëriñ la amoon décrété tëj tëj tëj euh, les les lieux de culte les écoles tëj fépp foo xamante ne nit yi war war nañ fa daan di daje mu ne loolu pour wàññi dangar gi ak dooley feebar bi la donc il avait plein pouvoir pour quel intérêt tey jii su ma doon laaj question dama naan Macky Sall li mu def yëpp tey ji lan la jëriñ sénégalais yi. d'accord euh, baal ma tuuti ma mm-hmm. yeggali ci logique boobu. Mm-hmm. ñu xëy feebar bi yegg si fi mu yegg si nii. Mm-hmm. avec les les chiffres que nous venons d'avoir en se disant que su fekkente ne li ñuy tuddee assouplissement maanaam ubbi école yi ak yeneen taxaw na ci ba ci jàkk yi mais pic bi léegi ñu jot ko te loolu c'est un danger c'est une catastrophe pour le pays alors lan mooy assouplissement pour moi c'est une stratégie logique que Macky Sall a mu ngi ci yoonam danañu xam fan la mais j'espère que ce sera pas trop tard ou en tout cas ce sera pas une calamité parce que mi ngi mel ni rek fi mu nekk nii ñun Macky Sall mais mu ñu teg ci taal bi wan ko ginnaaw boo yéex muy tuur. Mm-hmm. parce que mënatuñu ko contrôler mënatuñu contrôler situation bi te nag le peuple est souverain le peuple mérite mieux que ce qu'on en train de lui faire subir maanaam ni ñu koy traité nii avec mépris. sénégalais yi mérité nañu leneen lu dul loolu. d' accord madame Dieye si peuple boobu nga daanee sax euh, si laay yëkkatee pour euh, pour euh, poser la sama question mhm. est ce que mënuñoo wax aussi rétropédale bi nga xam ne président de la république def na ko wala sax paradoxe yi nga xam ne nit ñi tamit nemmeeku ne ko si mesure yi nga xam ne jël na ko est ce que aussi le peuple dans tout ça deful la benn pression le président de la république pour mu yolomal mbir parce aussi président euh, de la république euh, benn instant moom rek dégluwul ñi nga xam ne ñooy la peuple sénégalais si seen euh, bëgg-bëgg. xam nga soxna si. Mhm. Macky Sall dafa gagné ay élections. Mhm. moom ci li mu wax cinquante huit pour cent. Mhm. sénégalais yi voté ko kon sénégalais yi bi ñu koy voté dafa am lu ñu doon séntu ci moom. séntuwuñu pour moom ñu koy def pression muy dem kon dinañu xool koo xam ne dina gën a souple di déglu askan wi. mais Macky pour pas son peuple qui l'a élu c'est le gros problème de de de du président Macky donc ñi ko fal bu ñu ko fi tegee dafa am lu tax ñu teg ko fi moom mu xam ne il détient la destinée les rênes de la destinée du Sénégal il doit prendre des décisions quand il faut il doit être froid même dans certaines décisions quand il faut mais pour l'intérêt des Sénégalais pas pour l'intérêt de quiconque d'autre kon moom amul pression bu muy subir dans les premiers temps mënoon nga def lecture boobu ne ah c'est vrai gars xaw nañ koo kii sëriñ si bañ ne ñoom dañuy julli ji euh, jeunes yi commencé di wax non mais pression boobu est-ce que dafa tax ba tey changement am man doon naa d'accord kon su ma la déggoo see kàddu un état responsable warut a céder si ay pression non seulement warul céder si ay pression parce que l'état est une autorité l'état mm-hmm. est une autorité moom état moo war ñu wax solution ak fii la ñuy jaar nii laa gisee lii di am tal bu ko waxee nag mu nekk mais Macky day wax rek muy deñ tey jii li mu waxoon yëpp ba léegi nii dara nekku ci mhm. te suñuy wax du Covid rek moo tax ñuy wax parce que feebar la mais am na leneen luy reyee rey bu gën a bëri Covid te du Covid nit ñaa ngi seen kër yi ñu tele leen génn waxtu wi buy waaj a jot ñëpp daw ñibbi ñi lañ ci doon for as tuut di ko yore seen kër nit ñi amatuñu ko ñuy deew ak xiif seen biir kër yi. ñu dig leen ndimbal loo xam ni ba léegi nii kenn xamul lu tax jotuñu ci mais li leer ba leer mooy contrat yi signé nañ ko mooy scandale yi nga xam ne moo fi am rek ci biir Covid bi buñ ko doon lim duñ fa jógee signé nañu ay contrat jox nañu euh, euh, naka lañ koy waxee jox nañu euh, appel d'offre joxe nañu comment on appelle marché sans appel d'offre gré à pour lan njëriñu ay nit sénégalais yi ba léegi gisuñu ci seen bopp ceeb bi yëngal na fi ba son beau frair taxaw fi wax fi lu ne dina paateeg di tëkku mujjul fenn booba dafa jaxasoo rek anamu tey jii loolu yëpp pour man wax ci débat yi c'est bien mais dama bëgg ponctuellement l'urgence